njiitir réew mi ñeel budget bu loi de finance ñeel atum 2024 yegg na ba ci 4000 milliards ci suñu ay koppar koppar yi nga xam ne ñu ngi tukkee ca bitim réew nag ñoom yegg nañu ci 300 milliards ci suñu ay koppar ba tax budget général bu loi de finance ñeel atum 2024 dem ba toll ci 4600 milliards ak lu la ci suñu ay koppar budget boobee nag liñ ci ràññee mooy yokkute ci yenn ministère yi lu ci mel ni ministère des affaires étrangères nga xam ne yokk na ci lu toll ci 4 milliards ci suñu ay koppar ministère de la justice itam yëg na yokkute bu toll ci 13 milliards ci suñu ay koppar ministère bi yore wàllum napp gi nag moom itam yëg na yokkute bu toll ci 4 milliards ci suñu ay koppar waaye nag ministère bi nga xam ne moom moo gën a yokkule budget am muy ministère bi ñeel njàng mi ak njàngale mi nga xam ne yokkute bi ëpp na téeméeri milliards ci suñu ay koppar waaye nag teewul yenn ci ministères yi ñoom seen budget dafa wàññeeku ci atum 2024 bi ñu la lu ci mel ni ministère de l'eau et de l'assainissement nga xam ne ñàkk na lu toll ci 84 milliards ci suñu ay koppar ministère de la jeunesse de l'entrepreneuriat et de l'emploi moom itam ñàkk na lu toll ci milliards ci budget am ministère bi ñeel mbéy mi itam budget am wàññeeku na lu toll ci 48 milliards ci suñu ay koppar ñeneen ministère ak ay institution ñoom yokkuwuñu te ñu document bii di xam ne ne loi de finance 2024 bi ñu dëgmal dana dem ba toll ci 7000 3,6 milliards suñ ci yokkee peyooru bor bi nga xam ne mu ngi toll ci 1248,21 milliards ci ay koppar ñu nemmeeku ci itam ab déficit budgétaire bu toll ci 840,2 milliards ci ay koppar ci li ñu dëgmal ci atum 2024